asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa diaspora man Aïcha diaspora doomu tonto Aldo la classe chéri abi maa ñëwati fii ci salawam mu may defal yu baax boobu tey namu ma dara gisoo leen sama karaw gi temps yëpp cheveux crépus laa bëggoon j'avais de longs cheveux sama karaw gi afrabe ko yàkkoon mu liis et ma ne woon damay wattu su ma dellu Espagne tonto Aldo ne non fii yegg si nga sa kër boo fi ñëwee di nga am cheveux crépus yu rafet voilà te sa karaw dina nekk en bon santé ndaxte karaw dañ ko war a dundal di kon di ko nuuri comme ni ngay nourrir sa peau ak sa yaram ak sa wér yaram bu voyez boobu ba tey nag tontal de moom aw ma leneen mu ko wax yàlla moo ñu boole mu bëgg Baay Ñas ma bëgg Baay Ñas suñu xol yi daje ñu bokk benn Kaolack barke Baay Ñas man lu baax rek laa koy seedal ndaxte xolam jee rafet muy chéri abi aw ma benn fem boo ñëwee ba ci salon bi nga xiif di nga naan ndox nga mar di nga naan ndox voilà quoi boo tilimee sax dina la jox yéreem mu sol mu toog loolu moom xam naa si dara boo xiifee mu jëndal la nga lekk doo manqué dara xolam jee rafet macha allah yàlla koy fay kontaan nañ namuñu dara macha allah nañ ko ñaanal daal yàlla ba ko fii ca kaw ca kanam ak addo la classe merci beaucoup kontaan naa waa seen petit gardien yëpp maa ngi leen di nag samay fan si maa leen di bàyyi ma kenn ma ne képp ku ma seetaan télé ñëwal fii ci Aldo la classe ndaxte moo ko yor de salon yëpp bi moo ci gën man mii xam naa li ma leen di waxte te rëccu ma ko benn yoon. am na coiffure góor jigéen xale mag ndaw loo bëgg am na fi am na pose ongle pose xef maquillage am na lépp am na ay yére am na ay dal am na ay produits cheveux produits yaram saabu. macha allah ici xoolal fii moom may dal leen jàmm fii am na lépp yaa tu man nag Aïcha Diaspora may nara a ñëwaat ak yéen ci vacances yi ak ay yeneen morceaux yu bees ak ay yeneen surprise te am na série yu may bokk incha allah bëgg naa ngeen seetaan ma am na way yu may préparé te bëgg naa ngeen ñëw fii tonto Aldo ci tonto Aldo la classe voilà quoi mu defal leen yu baax ndax ngeen ñëw ngeen fekkee sama conseil yi may nar tëgg fii ci vacances ak man Aïcha Diaspora dara du yomb ak chez Tolto Ado la classe kon ca kaw ca kanam <laughs> avec Tektal TV ca kaw ca kanam man Aïcha Diaspora maa ngi ak Tektal TV. asalaamaaleykum man Dieyna la barbe noire maa ngi leen di nuyu ah euh, di gërëm Aldo mi nga xamante ne tuxul excellence ba ñàkk sens chéri abe mu baax me salon wa ma ngi nii lépp loo xamante ne bëgg naa ko su ma fi ñëwee macha allah li ma bëgg rek laa fi jëlee. été yi damay ñëw raser sama bopp comme que tàmm naa ay watak yooyu mu defal ma coupe yu nice tental ma ko. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu comme ni ko bi waxee rek naa la bi noire te dañu ñëw suñu salon frère muy chéri abi sama xarit sama lépp mbokk mi yaayu makandooy bërëb baa ngi ni ku bëgg dégradé yaa ma gën a xam wat comme été bee ngi ñëw isile yi daal ku ko bëgg fii ngay ñëw chez Aldo la classe lépp a ngi fi. kontaan nañ trop ñu ñëwoon tey mu invité ñu ndogu yàlla na yàlla def xéewal bi jaay Seydina Mouhamed waaw ndaanaa ni rek ku ci mel ni la bi Noire mu ngi nii ñeneen ak ñeneen rubba sama sœur waaw ku bëgg yu baax daal fii ngay ñëw diw yaa ngi fii lépp a ngi fii aldo bu ñu daagoo ba seet si la lakala suma daagoo ba seet si la ni xolal ni ngay mel ni ngay mën a mel sa yaay yaa liggéey lii affaire bi nday si la aldo lan la ñuy doyee la kalaas la ñuy doyee <laughs> aldo la classe waaw nekk nit ko xam ne nit ku baax la nit ku bëgg nit la nit ku am yërmande ci nit la waaw salon bi daal soo fi ñëwee doo sonn benn yoon loo loo bëgg soo ba ngoon di ko am muy góor di jigéen di mag di ndaw jutuma ci événement bi jëm nii waaw lépp daal lu ndaw di bëgg ak mag yëpp boo ñëwee fii di ko am muy lépp daal lu jëm ci wàllu fii mën na ko lu bëgg na lii muy def en tout daal di ko ñaanal ci yàlla yàlla may ko lu mu bëgg moo ko xam dara jaay Muhammad fii daal Hors de la case wax lépp lu ndaw bëgg muy góor di jigéen di mag lépp la bëgg a daal boo ñëwee ba fii di ko am. jërëjëf euh, mbokk mi euh, man de ñëw naa fu ma miin fu ma tàmm di ñëw waaye nag tey laa fi mas a ñëw ndax Aldo 1 laa xam miin ko di ko fréquenter depuis toujours nit ñi léegi kenn moomatu leen fu nu dem mu neex am ñu am jàmm am travail bien soigné. am fa respect ak ay yëf yu sew yu kenn mënut a définir te ci jikko rek lay dox léegi ak yar ak teggin ak professionnalisme liggéey bu tegu ci yoon dañ fay dellu loolu la ñuy xaar léegi ci sénégalais yëpp nit kiy liggéey am jom di jàmbaar gëm li muy def nag parce que coiffure du métier bu évident yombul pour nga réussir ci coiffure comme ni ko yàlla maye macha allah da nga koy gëm nekk ci góor ak jigéen la Aldo yamale te bari na ku liggéeyal jigéen ñaari yoon ñett yoon ñemewoo koo defaat ndax dangay sàggan da ngay jeng fii ay manke ñoo fiy ñëw ay star ñoo fiy ñëw ay nitu secret ay boromi barke ay nit ñu siiw ñoo fiy ñëw loolu pour nga geraleen yombul Aldo dafay def à domicile ay mbakke mbàkke ay ñaseen ay sëtu sëriñ Touba ay nit ñu baax Aldo li muy liggéey ku ko mos xam ko dootoo ko bàyyi teyit ku ne xam na liggéeyu karaw am na ñooñ dañu fonk seen bopp fonk seen wee sax buñ ko daggee dañ koy fonk loolu lépp ay da koy gérer waale Aldo macha allah yàlla ko yàlla fal cat yàlla na dund ba gis Aldo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aldo Chine Aldo Hong Kong Aldo Singapour Aldo Paris Aldo un peu partout dans le monde parce que nag gone sénégalais gu gëm boppam di daan dooleem kooku rek la ñu war a jàppale gannaaw mi ngi jàppale boppam pour que mu mën a émergent fast track lan la fi defal boo xam ne bii da ngay sax daw loolu daal man moo ma tax a ñëw fii moo ma fi indi kontaan naa ci ñëw fii itam. jërëjëf salaamaaleykum sëñ Baara wax dëgg yàlla lu rafet li nga wax lépp ci yow la ne waaw parce que vraiment bu doon da nga doon mag moo xamante ni ah nekkoo mag moo xam ne da nga ubbeeku ba nit ñi mën la ñemee pour mën di tànk ci sa xam-xam ak sa expérience ak sa vécu. maanaam ak sa xam-xam bi nga xamante ni yàlla moo la ko may te macha allah da nga ci généreuse waaw yaa ngi ciy dimbale ñëpp ku am soxla man li may wax sax mooy yow da waroon tijji sax cabinet de consultant bu ko defee ku am soxla wala ku am problème ñëw wax la ko nga tajal ko ko waaw non non xam naa <laughs> non xam naa ne xam naa ne yaa ngi urajo mais tey moom tey moom waa Tektal moom ñoo fi toj quoi tey moom vraiment waa waa Tektal TV ñoom Cheikh Talif ak équipe am bii tamit maa ngi leen di sant di leen gërëm. léegi nag liggéey bi moom ah moom ñun lépp la ñuy def waaw ñun lépp la ñuy def général la ñuy def. parce que en matière de coiffure moom ñun mun naa ne parce que mun naa ne presque ay lépp lañ daal. coiffure couture styliste xam nga lépp la ñuy def ñun. waaw dañuy def coiffure homme dañuy def coiffure femme. xam nga dañuy def pose ongle dañuy def pose cils pédicure manicure xam nga en même temps dañuy defaale même ay tatouage ay crayon make up make up dañ koy def coiffure moom lépp la ñuy def dañuy def greffage dañuy def teinture en couleur dañuy def ay coupe waaw parce que ñu bëri bu ñu déggee Aldo rek dañu yaakaar ne Aldo coupe rek lay def waaw coupe nag mooy mooy voilà voilà non coupe sax moom mun naa ne mooy sama mooy sama base waaw parce que tamit ñu bëri coupe lañ ma xamee coupe femme ak coiffure om mais greffage bi moom dama ciy def yu yéeme waaw façon teg boo bëgg si àdduna boo ñëwee dañ la koy defal te aussi dañ lay conseiller xool sa kanam ne la ah yow vraiment lii moo la jàpp defal lii xam nga su ma lay conseiller tamit damay wax ak yow ci waxin bu waxin boo xamante ni di nga xam ne kii li muy wax ni làmbatuwu ko xam na ko quoi parce que nit ñi tamit wax dëgg yàlla xam nañ lu baax waaw te bëgg nañ lu baax aussi. yow ku doon ibaadu ku doon ibaadu moom bu ñëwee dañ koy traiteel sikkimam bi. Hmm. parce que ibaadu moom lu mu mën a am moom sikkim moo ko gënal. waaw bu dee jigéen tamit. ah surtout sikkim bi yàlla bu mu am ay grain yu xaw a weex yooyu xam nga. macha allah yooyu comme que temps yi dafa xew. Hmm. kooku bu ñëwee dañ koy gën a traité. defal ko ci ay ay ay ay crème yoo xamante ni. maanaam sikkim bi day rafet nooy ku ko gis bëgg ko waaw bopp jigéenu ibaadu tamit dañ koy traité parce que tamit nit mënoo ne sa bopp xam nga da day mu da ngay muuru rek donc voilà voilà comme soxna si nga gis nii day muuru mais macha allah day defar boppam ba rafet waaw yow dabal dabalaa dañ koy def mais instant yi moom dégradé moom mun naa ne moom <laughs> moom moom moo koy toj te man moom yàlla macha allah mun naa ne maay xalifa général ku lu dégradé moom. parce que dégradé boo gisee ñuy wax dégradé sur mesure la war a nekk. parce que bopp bu nekk ak dégradé boo xamante ne mooy mesure am. parce que des fois tamit gars yi foofu des fois ñu def fa erreur da ngay gis koo xamante ne bopp bi dafa tuuti nga ñëw bëgg ko defal dégradé boo xamante ne saa yi. waaw dégradé bu sew kooku bu boobaa day ànd ak bopp bi ndaw. waaw mais bu dee da ngay am ay produits yu baax yoo xam ne après da nga koy defal ay traitement xam nga soigneel ko karaw gi bu baax waaw man daal li ma bëgg mooy instant toll ni ah client yi moom ku ku bëgg lu rafet bul hésiter pour ñëw ci Aldo bul hésiter pour contacter ma bul hésiter voilà waaw waaw ku mënul ñëw sax man soo ma wooyee parce que man damay def ay coiffure à domicile xam nga yooyu yëpp dama koy def foo ma wooyee rek man après si numéro 77 631 73 87 waaw ah, numéro boobu si 77 631 73 87 waaw numéro numéro boobu moom ku ma ci woo même Facebook WhatsApp xam nga voilà yëpp boo tapé Aldo coiffeur rek gaa di nga ma gis te boo ma to man moom ku ma envoyé message ma tontu la man moom du ma waaw du ma du ma du ma non équipe nationale équipe nationale sax bëri na ñoo xamante ni sax maa ngi leen ciy wat waaw maa ngi leen di maa ngi leen di maa ngi leen di jaay ay produits maa ngi leen non ñëpp basketteurs international yeeg hmm. musiciens international yeeg artistes yeeg parce que boo gisee ñu ngi fi fekk nii sànq fii ñoom ñëpp ay artistes lañ waaw ku ci nekk mun naa ne say album ak say cassette ak say vidéo mi ngi daw hmm. xam nga ci tele bi hmm. waaw donc loolu lépp tamit dañuy ñaan yàlla rek yàlla xeb doole waaw non lu tax ñu ñu may wër si mooy maanaam star ñoom lu wër lañ bëgg waaw ñoom bugguñu ay làmbatu daal maanaam ñu defal leen loo xamante ni ah après dañ ci am déception xam nga star moom koo xamante ne yow mun naa ne yow sa image moo lay jaay kooku moom image am daf koy fonk quoi waaw te aussi xam nga iti fo liggéey bi daal dafa am ay secret yu bëri yoo xamante ni respect ak tamit am sutura sutura waaw surtout sutura bi parce que tamit kilifa bu ne ngay ngay ngay dugganteel hmm. waaw ku yàlla may nag yow nga mën sa say nit mun naa ne yow yaa ngi nii baara mi ngi nii bañ xamanteeg léegi ëpp na vingt ans donc macha allah ba léegi suñuy relation mi ngi rafet. donc loolu dëgg rek moo koy moo koy lal quoi. Aldo HLM am waaw foofu jafewul loolu gars yi fuñ ma ga man moom boo ma woowee téléphone. Hmm. dinaa la expliquer na la ah lan nga bëggoon soo ma waxee li nga bëgg man dinaa la jox rendez-vous. Hmm. waaw ah, parce que sur rendez-vous laay liggéey. soo jëlee rendez-vous soit bu dee lundi ak mardi dama na naan maa ngi Castor. boo ñëwee ba voilà boo ñëwee ba école Xaadim Rasul. boo jëlee tëli tëli bi jëm marché rek. Hmm. première euh, première magasin deuxième man maa nekk noonu. waaw HLM Grand fi boo ñëwee ba école Pythagore rek boo paasee pharmacie Ibrahima bi rek boo xoolee sa droite. waaw di nga gis affiche Aldo bi foofu foofu taxaw rek am na whatsapp waaw am na am na numéro bi daal mi ngi fépp waaw hmm. foo dugg maa ngi publier lépp di jaay ay produits yu baax yoo xamante ni tamit leel leel dama koy maa ci gaaw hmm. gars yi leel non leelu Ziraan moom périg lañ koy utal mais boobu moom <laughs> boobu mais leel moom boo xamante ni moom mi ngi début leel la moom. Mm-hmm. boo ñëwee dañ la koy traité. moom non non Sadio Mané moom leelam bi moom xam naa ne bis bu ñëwee ci man moom leel bi dama moom. loolu ah. moom leelam moom garaawagul. boobu moom mën nañ ko traité. Ah. te yor nañ ay produits yoo xamante ni pour xam nga pour kuy def traitement de cheveux wala karam di wow rek wala kuy karam di waaw am na ay yoo xamante ni tamit pour traitement xam nga cheveux crépus la am di jaay diw yaram tamit. ay savon xam nga macha allah daal ñun daal saay waaw lu baax même yére même yére yi yére yi indi indi la indi yére yi mool la waaw voilà xam nga yére yi nii kii kii ku ko xool indi indi jesner boobu lii lii ku ko xool vraiment waaw da ngay xam ne liggéey bu raar la lii ku ko xool xam ne dafa am valeur dafa am personnalité te dafa cher waaw gis nga xoolal li liggéey yëpp kii foo ko xoolee xam ne kii haute couture la parce que ñun suñu liggéey yëpp sur mesure la ñuy def parce que li ni nga ma gisee nii macha allah ni ñu may tuddee ci coiffure bi man noonu laa mel ci ñaw bi waaw ñaw yi yëre yi ngay gis nii yëpp kii ñaar ñii duñ ma bàyyi ma fen waaw yére yi may yi ñaw nii yëpp man maa koy dagg aw ma jot nag toog ci machine bi nag di ñaw mais yére yi ku yére bu ma neex mun naa ko ci dagg teg ko ci kaw machine ñaw ko waaw te su ma la xoolee rek xam naa yow sa morphologie lan moo lay jàpp waaw te yooyu yëpp tamit yàlla macha allah yàlla mi ngi ñu ci mi ngi ñu ci mi ngi ñu ciy suturaal quoi waaw. non fii kay kor surtout feet yi ay feet wala programme korite tabaski maanaam ku bëgg a sañse rek jarul ngay hésité ñëwal rek saa yooyu ñëwee fii da ngay xool da xool lu la neex rek nga yóbbu kon non man kay waxuma la defaral nga rafet mais dinaa la defaral nga rafet ba pare di la conseiller. ba pare fu ma la laalee moom coow li day bari moom. non macha allah lool moom yàlla may na ko moom. non xale yi ji xale yi xoolal xale yi jigéen yu lamb yëpp. ku fi ñëw su ma la laalee moom boo matul boo fi jógee di am jëkkër. non su ma la defaralee. <laughs> su ma defaree sa non dama garaaw moo tax defar naa ko su ma la defaralee sa bopp non te fii boo ñëwee moom moom téye téye à l'aise waaw soo ñëwee tant dans tente bi soo ñëwee dinañ la toppatoo am na fii am na kafe am na kilim xam nga te aussi sa heure bu jotee sa rendez-vous cinq minutes du si tegu dangay ñëw rek ñu defaral la li nga bëgg xam nga te aussi maanaam liggéey bi daal mooy loolu waaw kon kontaan na waaw waaw waaw dama leen dama leen joxaat adresse yi. waaw adresse yi salon bi nekk kastor boobu mu ngi nekkee ci école Khadim Rassoul la nekkee boo ñëwee ba ci école Khadim Rassoul rek boo mel tëli marché bi rek ci miiru terrain bi foo taxaw fa boo ne salon Aldo ñu ne la salon bi mi ngi nii. boo ñëwee fii tamit HLM Grand F boo ñëwee ba école pédago voilà soo avancé ci pharmacie Ibrahima bi rek boo xoolee sa droite. première maison deuxième troisième mooy salon bi numéro téléphone bi 77 la 631 73 87 waaw loolu mooy numéro waaw waaw 73 waaw ak 3 la kooku moom numéro boobu moom moom ku ma ci woo rek jot ma waaw mbokki Sénégal mbokki HLM Grand Yoff mbokki Ndakaaru Ndiaye euh, di leen wax ne nag wax digg yàlla euh, kii dafa def lu am solo dafa def lu loo xamante ni lii kenn mënu cee wax leen lu lu baax ma koy ñaanal gudd fan wér-wér le moo xam lépp lu mu bëgg yàlla defal ko ko muy ku baax di ko oyof di ko bëgg doomu aadama di ko bëgg liggéeyam euh, di wax nag Sénégal xale yu jigéen yi xale yu góor yi képp ku bëgg rafet képp ku bëgg fashion ñëwul fii ci Aldo la classe mi ngi fii ci HLM Grand Yoff képp ku bëgg lu baax rek ñëwul fii ci HLM Grand Yoff mu defal lu baax en tout cas xool lay liggéeyee ku mu liggéeyal nga kontaan ku mu defal nga kontaan kon nag ma koy ñaanal moo xam lépp lu ma bëgg yàlla defal ko ko te li ma dégg ay famille mu waxal ko ko de wax dëgg yàlla ku nekk ñaan nga yàlla loolu kon nag yaa xam lépp li nga bëgg yàlla defal la ko bonne continuation grand frère bu baax la bëggal na ma boppam euh, kii dafa neex a bëgg kii dafa neex a sopp kon nag képp ku bëgg lu baax ñëwul fii ci HLM Grand Yoff boo ñëwee di nga kontaan dina la réel dina la kafak dina la dina la réel dafa xewi nañ ñëw fii HLM Grand Yoff HLM Grand Yoff boo fi ñëwee lépp lu bëgg boo bëggee defar sa karaw boo bëggee cheveux bu baax lépp loo bëgg ci xeetu mbaax mbaax rek maanaam ci wàllum te it dañ ne ku ñu ku ñu fay sa bor nga mer war nga xoolaat sa bopp xëy na la nga leble woon moo xaw a doy waar mais yow léppaloo kenn lu ñaaw lébaloo kenn lu bon atelier bi fii nii damay ñëw watu ba fashion duma fay dara mais kii nañ ko ñaanal yàlla gudd fan wér wérle fii ci Aldo la classe Aldo coiffure kon nag yàlla na ko yàlla defal jàmm ca kaw ca kanam ci lu baax ay ci mi ngi noonu jërë ngeen jëf Aldo la nga defoon daaw géej ma boo defee ren ji danañ la teral ba nga tedd rëbb la njañ foo ku raarab kenn du loo jëli ni xolal ey ndela mbasal ma feewaay tey mu mel ni lombalu vampire ku jekku sa tey mu mel ni lombalu vampire lay lay laa laaw yaay garmi yaay betee betee ey mooy garmi mooy betee betee ey aldo fakkun jeyul sa ginda cell sa wira mooy ji fi jafa wasi wasi jey do fakk man do wayu do kok sooru say maas mooy garmi mooy betee betee mooy yow mooy garmi mooy betee betee ey ana ñi ko bëgg alto la kalaas doom ji ndeyam ngërëm chéri abi kaay ana ñi ko bëgg lay lay laa laaw alto rasku gu tànn ku ko jaay jaral ku ko sokkee am njël rasku gu tànn la dëgg neexul ma sa